waaw mais mais nit nit nit nit nit ndeysaan nit dafa am lu nekk ci moom benn tomb ñu koy tudde al xill wa nazaana maa fi suturihim min xillin gis nga tomb boobu ne sa yaram piil boobu ne sa biir dënn bu fuddoo rek man ngaa rey nii sax moo tax yonent bi ne boo meree boo taxawee toogal su la fekk nga toog tëddal parce que dafa garaaw nit bala ngaa àtt da ngay xool foofu ba pare parce que maa mu indi pile bi jóg maa maa tey parce que maa tey bu ko waxuloon rek xam xam nga loolu du am waaye maa tey rek moo yëkk moo yëngal pile bi moo tax mu dóor ko looloo ko waral waaye nag bu fekkoon indiwul maa tey rek pile bi di jóg parce que na mu doon waxaatee ak ci ci li wax bu bu bu noppi woon rek bañ a bañ a waxaat leneen rek dara du jóg waaye nag dam ne mu ne maa tey booba nag lan lan le bi ne ci xol bi jóg bu mu koy dóor du ko tey mën naa am dóor na ko rëcc ko wala mu dóor ko te tey ko loolu amul am na ci parce que ñàkk a dafay am waaw bu dee ne kilifa yi man man daal duma ci wax lu ñaaw kilifa yi duma ci wax lu ñaaw koo xam ne yilif na sa junniy moroom wala sa ñaari junniy moroom ñoo xam ni kenn ku ne mën na laa yeew wax dëgg yàlla wax ko waxul ñaaw daal jàll yoru ci sëñ Moustapha li mu yilif dafa bari waxuma li mu yilif waaye li mu jàngal ñi mu jàngal ci xale yu jigéen yu góor dafa bëri li mu yeete dafa bari man mii moo ma jàngal fii ci école bii école arabe baa ngi nii man mii man man nangu naa man man moo ma jàngal bari na ay morom de ñu jangal de bari na morom yu mu jangal torop torop torop ño xamni ken xamul won de bu daan genn di doxantu ji dem kër yaayam wala keur pa bajjanam fi lay jaar ci mbedd buy dox day def seug rek lu mu gis denc rek su ñewé mom la ñuy jangal ngon leçon de morale yi lay jangal dafa dafa mëna yé nit suñu musa dafa mëna yé nit nit bu fekké ne wax wax nga maandu ci moom man daal wax bu boo waxee bu ma bu ma neexee ma ne est-ce su ma neexul wala dégguma ma ne pat waaye di dal ci sa kaw al martabatu laa tusaamih de al martabatu laa tusaamih martaba du jéggale mu ngi mel ni courant ma def ko sama bunt bi def ci courant dugg ci biir néeg bi nelaw du jaañ ma li ñëw courant bi jàpp ko man lu ma ci yëg yëguma ci dara courant bi jàpp ko ba ko noonu la martaba mel da ngay tooñ nit martabaam fàdd la fële parce que martaba lu toog al martabatu laa tusaame nañu moytandiku kilifa yi nañu leen moytandiku ku ci wax loo déggul nga maandu ci waaye yow feroo ijji yeggoo fenn xamoo lu bari ngay weddi koo xam ne maar day taali laa te bu dul daal sutura baax na sutura baax na eh, xam nga lu toll ni man dama noonu duma ci wax sax lu toll ni gàmmu li sëriñ bi wax yépp ni mu bëree ñu jël ci benn wax bàyyi la ci loolu loolu loolu la li wax lépp ni mu bëree jëluñ ci li wax dara dara dara loolu jël loolu rek loolu loolu doxul loolu doxul nit da ngay da ngay am xel te gis nga bari na lu ngeen di teg nii gars di ci ku ne commentaire gars yi ku ne indi wax nga nga aju ca def commentaire bu ñaaw jamono di dox ba yàlla def nga dajee ko wallaahi wala jamono dox ba njanu yóbbu ci ko commentaire dafay rafet gis nga commentaire yi nga xam ne téere yi def nañ ko ci alquranu karim tafsiru quran li nga xam ne commentaire nañ ci kenn xamul nu mu toll waaye ñëpp a rafet ku wax kenn ñemewu la weddi sa wax day ñëw wax weneen kenn wax leneen kenn wax leneen mais loolu muy commentaire mais commentaire boo xam ne da ngay dagg saagay ndey waaye kii day nangamtaan ndeyam waaw man maa tey kii ne kii day nangamtaan maamam kii ne kii day nangamtaan baayam saaga rek saaga rek saaga rek saaga du baaxul baaxul gis nga nitu kese kese sax nitu kese kese ku la deful dara soo dalee ci kawam mën naa mën ngaa gaaw nit ku la deful dara rek ndax yàlla mooy arbitre ay jaamam te ku ne xam na la nga moom waaw ku ne xam nga xam na sa àq soo dalee ci kaw nit te jotewu leen dara nga wax ko lu ñaaw bis dana ñëw dana dana dina dis yow lool baaxul da ngay fexe wax lu rafet commentaire lu rafet waaye daal loolu laa gëm man waaye lu ñaaw daal baaxul lu ñaaw baaxul nañu moytu yooyu te seen kilifa lañ laal ku laal sa kilifa na nga mer procureur na xam loolu ne ni ñu ma waxee nag laa leen tontoo na xam ne kii dafa laal seen kilifa na xam ne ba mu waxee kii def ne ndaw sa def ne maa tey maa tey boobu nag moo yëngal xel bi moo tax mu yàlla ne mu mu mu réagir waaw kële itam toog mën koo muñ mu jóg padd ndaw si réagir il faut bala ñu àtt ñu jàng loolu ba xam il faut ñu jàng loolu